salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewluwaay ak seen taxawaay ci suñu émission bi di Sénégal Vibe tey jii nag ñu ngi si suñu ñaareelu pàcc ci émission bi tey ñuy waxtaanee sujet bu am solo ku ne xam na ne ñu ngi ci dem ci l'ouverture école bi ñu ngi waxtaanee tey wàllum professeur euh, artistique yi. ni ñu seen taxawaay ak seen gëdd ba xam ñu ngi leen koy jox ci réew mi wala. tey nag ñiy dalal koo xam ne mi ngi bokk ci coordination nationale des professeurs d' éducation artistique et musicale du Sénégal ñi bàyyi ko mu présenté boppam. Euh, bonjour euh, madame Khadija. di leen di nuyu leen sant yéen waa Thiès 24. Euh, je me sama tour monsieur Sène Papa. Euh, je suis professeur de musique au lycée Amary Ndack Seck. depuis octobre 2009. Euh, par ailleurs euh, coordinateur de la cellule académique de Thiès. Également, je membre de la commission nationale en éducation musicale et euh, membre de la commission, euh, euh, la coordination nationale des professeurs d'éducation artistique et musicale et commissaire au CAP, c'est-à-dire euh, la commission d'avancement paritaire. Voilà, c'est ça. Et j'ajouterai également sur le plan sportif que je suis le capitaine du VCT, Variété Club de Thiès, et je fais un clin d'œil à mes amis du VCT. Voilà. ñu ngi lay sant di la gërëm sa waaye tey jii suñu plateau bi question bi lañ bi ñu lay njëkk laaj nag mooy di lee nga évaluer place bi ñu jox enseignant en art yi fii ci Sénégal. waaw bon ñu ko mën a évaluer comme on dit souvent bon. umpul ñëpp que comme on dit euh, ce n'est pas un secret de polichinelle que de dire que euh, les professeurs de musique et d'art plastique ñoom ñaar ñoom daal ñoo ñi ñuy wooyee ku ma amul ndey ci système éducatif yi voilà on voit que ne traitement bi daal des na de la part euh, des autorités et d'ailleurs euh, loolu moo waraloon sax coordination bi bind benn mémorandum déposé ko ci table autorité yi également ci syndicat yi voilà mën naa nag peut-être que euh, c'est du également euh, à plusieurs facteurs boo jëlee benn mooy li ñuy woowee le caractère euh, facultatif de la discipline parce que discipline bi ni ñu ko xamee mooy boo ñëwee ba ci collège maanaam sixième ba troisième elle est obligatoire mais bu ñu demee ba bac elle devient facultative la discipline Euh, boo ñëwee ci niveau secondaire elle devient option optionnelle voilà maanaam ñi dañ koy def ñii dañ ko def voilà et c'est l'occasion également de remercier euh, le censeur du lycée Amary ak Seck moom mi nga xam ne bi mu fa ñëwee il a rendu quand même la discipline euh, obligatoire pour les classes de seconde et de première maanaam boo nee ba terminale si ngay tànn ndax na ngay def musique wala éducation artistique wala doo def benn voilà et ce qui nous a valu également un taux de bu acceptable quand même euh, ñaari at yi ñu weesu muy daaw ak ren voilà moo tax daal ñu ngi remercier le censeur euh, ak le proviseur Ngolo Thiam ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci école boobu nag voilà. Euh, dégg nañu sànq nga ne professeur aar yi mooy li ñuy woon mën a woowee kumba amul ndey. Mhm. ci wàllum système éducatif bi yaakaaroo ne ak euh, réforme bi ministre bi wax dinañ leen gën a jox gëdd dinañ leen gën a yëkkati gën leen a teg seen place. voilà am nañ si yaakaar lool et puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, amoon nañu ay rencontres yoo xam ne defoon nañ ko ak ministère ce qui nous a valu euh, en mille vingt benn nomination wu ñaari coordinatrice national à savoir en musique et en art plastique en l'occurrence Thioro Gaye coordinatrice nationale et madame Abigué Dieng euh, national en art plastique Alors, je pense c'est un acquis et puis également on a constaté par rapport au recrutement des professeurs euh, élèves professeurs de musique euh, au niveau de l'ENAMC am na benn nette augmentation puisque dans les années 90 ay cinq lañ doon nekk ñu dem ba benn instant aussi on est passé de cinq à quinze maintenant cette année pour recrutement ñi nga xam ne ñooñu lañu ñu war a former te ñu war dem jàngale ci classe yi ils sont passés de quinze à trente par euh, discipline à savoir euh, trente euh, en musique et trente euh, en art plastique je pense que loolu c'est un yi ñuy ñaan ak yeneen yi nga xam ne euh, ñu ngi koy sàkku aussi ñu ñu defal ñu ko. surtout surtout li gën a am solo si ñun mooy rendre la discipline obligatoire maanaam bépp élève ngay def musique ngay def euh, euh, éducation artistique depuis la seconde jusqu'en classe de terminale bon loolu nag pour ñu réussir ko je pense que il faudrait que ñu am ce qu'on appelle un maillage au niveau national c'est-à-dire fépp foo xam ne collège la wala lycée ñu am fa benn professeur de musique bu boobaa bu ñu amee professeur de musique si CM ak si lycée bi mën nañ am yaakaar ne la discipline elle sera obligatoire parce que mënooy tamit rendre la discipline obligatoire alors que école yi amuñu prof boobu noonu loolu mooy waral après di andi ay grève ak yooyu noonu moo tax daal li ñuy ñaan daal fépp foo xam ne daal euh, lycée la wala collège mu un professeur de musique ou bien un professeur d'art plastique bu boobaa rek discipline bu obligatoire rek bon je pense que li des yëpp dañ ko dina mën a dañ ko mën a saafaral daal voilà waaw seetlu nañ ne euh, même su discipline bi nekkoon obligatoire tey jii est-ce que infrastructure yi doy na. parce que tamit musique ku ne xam na ne wala art plastique dinga nga soxla ay pinceau. Mhm. ay tableau euh, wala ay flûte. wala mhm. ay piano et tout ça est-ce que loolu du ngeen ci gën moo tax wala. waa je pense que loolu nag day manqué na nag ci yenn établissement yi quoi qu'on puisse dire parce que comme ni ma leen ko waxee tantôt. Euh, man maay coordonné fii au niveau régional lépp lu jëm si musique te maay am écho souvent dans les établissements li ñu soxla par exemple benn endroit boo xam ne boo fay jouer doo mën a déranger sa yeneen yi nekk à côté benn salle spécialisée suñ ko mënoon am day doon li gën yenn également euh, chef d'établissement ils sont un peu réticents par rapport ak débloquer yenn budget bi pour permettre aux collèges aux collègues plutôt ñu am le matériel nécessaire ce qui n'est pas le cas tout le temps bon moo tax sànq ma ne leen euh, également di remercier le censeur Ablaye Ndiaye bu lance ak le proviseur également madame l'intendant madame Fofana parce que on a vu que ni depuis ñoom bi ñu fi ñëwee quand même lépp li ñu bëggoon muy ay instruments de musique muy ay matériel en éducation artistique mooy pinceau yi nga wax ak yooyu noonu yi ñuy soxla ñoom bon je pense que defal nañ ñu dotation boobu ba nga xam ne vraiment élèves yi souffrir woon pour am matériel yooyu noonu boo xoolee ñun suñu classe fi ñuy jàngale élèves yi dañuy jàng flûte ils font aussi bien la théorie également la pratique maanaam dañuy jouer flûte dañuy bind aussi dañuy jàng voilà euh, en également c'est le cas loolu yëpp même dañu am sax benn li ñu woowee benn club de musique boo xam ne vraiment mu ngi dund bu baax ñu koy may remercier au passage sama collègue yi fa nekk à savoir euh, monsieur Diatta Ibrahima Diatta ak euh, monsieur Gassama Maha Gassama on est trois professeurs de musique là-bas et deux professeurs d'art plastique pour les professeurs d'art plastique nous avons monsieur Amar et monsieur Keita auparavant nous avions donc également monsieur Silla ak euh, madame Cyprienne ñoom itam ñu def liggéey bu rafet si on prend l'exemple de monsieur sila boo xoolee tableau yu nekk fii si édifice yu bari fii nii à Thiès moom moo ko defar boo demee tey muru yaay moom moo ko rafetal parce que tableau yu bëri moom moo ko fa def nga demaat école bi ñu naan Daniel Brochet tableau yu bëri yoo fa seen loolu tam c'est l'œuvre de monsieur Sylla kon ce qui veut dire ni professeur de musique yi ak professeur d'art plastique yi macha allah ñu ngi def liggéey bu rafet fii nii au niveau euh, régional d'ailleurs ce qui nous a valu sur pour si club musique bi ñoo animé woon il deux ans concours national bi nga xam ne moom lañ amoon au niveau du CRFP de Dakar mu doon loo xam ne ñëpp ko rafetlu voilà tout à l'heure euh, maa ngi ko doon partage ak euh, seen kii bi seen euh, xarit sama xarit Babacar ma koy woon vidéo bi muy loo xam ne ay morceaux yu booy reprendre yoo xam ne macha allah même d'ailleurs su ñuy def suñu Fosco au lycée le plus souvent ñoom ñoo koy ubbi ak hymne national ensuite di jouer ay morceaux yu tubaab fakala macha allah yu jaar yoon daal voilà li ñuy ñaan daal vraiment mooy un peu plus de moyens. mais également euh, revaloriser la discipline vraiment loolu daal ñu ngi koy ñaan daal autorité yi voilà. comme ni ngeen ko déggee autorité yi yéen a ngi ñaan ay infrastructures yu doy mais lan nga ñu mën a wax ci CNPEN parce que seen pen aussi mm-hmm. est-ce que mu ngi ciy dox walla ci lan lay yëngu exactement parce que dégg nañ réinsertion des professeurs mm-hmm. augmentation de l'effectif lan lan lan ngeen bëgg exactement ci CNPEN Voilà, euh, c'est la CNPEAM, c'est-à-dire la Coordination nationale des professeurs d'éducation artistique et musicale. Voilà, c'est une benn association la nag buy regrouper euh, des professeurs de musique et des professeurs d'art plastique ñu ngi ko créé mu ngi war a mot juróomi at ren lañ doon def suñu deuxième deuxième euh, assemblée général ñu defoon ko fii à Thiès euh, le 28 septembre bi passé nii. et franchement ce fut une réussite macha allah li ñu si yaakaaroon yëpp bon euh, amoon nañ ko si organisation bi d'ailleurs ñuy remercier ñëpp ñu fa teewoon en l'occurrence le PCA euh, du Grand Théâtre euh, ñu naan ko euh, kilifa di ko remercier si teewam si teewaayam di remercier également représentant syndical yi fa nekkoon le représentant du ministère de la culture le représentant de l'ENAMC mais nag euh, pour revenir ak euh, NMC euh, CNPA li seen liggéey comme on l'a dit lépp li nga xam ne mooy ñaxtu enseignant professeur éducation artistique et musicale et loolu yëpp dañ ko compiler woon ci benn ci ay kii benn fay bu ñu tuddee mémorandum boo xam ne déposé nañ ko sur la table des de de des de nos autorités à savoir le ministère de l'éducation nationale et également euh, si syndicat yi loolu yëpp déposé woon nañ ko en euh, mën nañ ci citer si yooyu noonu yi nga xam ne ponk yi nga xam ne yi nekk si mémorandum yi bon entre je pense que 27 euh, point point la mais mën nañu citer entre autres rek comme je l'ai dit tantôt rendre la discipline obligatoire ñu ngi koy ñaan vraiment parce que loolu bu ñu ko defee rek nañu réussir lu bari ensuite dans cette certaines euh, certaines inspections d'académiques on note que amul un formateur mhm. d'ailleurs c'est le cas de euh, l'IA de Thiès voilà fii au niveau du CRFPE amuñu fa formateur bon man maa fay euh, représentant bi mais c'est juste je le coordonnateur de la cellule pédagogique mixte ñu ñaan nag dans les régions ñu mën fa am fu nekk ak formateur là ce serait vraiment bien voilà euh, yooyu daal ensuite euh, suñu mënoon amit tamit ay inspecteur voilà au niveau de l'éducation artistique et l'éducation musicale loolu ce serait bien également changer ce qu'on appelle le dénominatif euh, li ngeen ñu wax souvent naan prof dessin mm-hmm. waaw je dis souvent prof dessin damay dégg ñu naan ne prof éducation artistique plastique yi ñu ne mm-hmm. le dessin est une infime partie des arts plastiques parce que am na desin am na volume am na graphisme ainsi de suite donc on dit plus professeur de dessin mais on dit professeur d'éducation artistique plastique également on dit plus professeur de musique mais on dit professeur d'éducation musicale voilà yooyu termes yooyu itam dañuy bëgg tamit nit ñi ñu commencé ko miinal seen bopp quoi voilà je pense que maintenant pour revenir ci côté mémorandum bi peut-être que le chargé de comme bu CNPA Euh, pour prochainement mën je pense que mën ngeen ko fi invité. Mhm. il va revenir plus amplement si mémorandum ak lépp li ci nekk si biir. Mhm. voilà je pense que lui il sera beaucoup plus habilité pour dugg si yenn détails yi daal voilà. waaw fii nag la ñuy yem ak ndax waxtu bi mën ñuy xoj ñu laaj la rek lan mooy sa mot de la fin. voilà sama mot de la fin comme je di di remercier euh, nos autorités mhm. euh, du lycée Amary Ndack Seck maa ngi di gërëm ñoom ñëpp ah, euh, le le proviseur sortant Ngoule Thiam le censeur sama collègue yi fa nekk mais mais également mes collègues euh, professeurs de musique de la région de Thiès maa ngi di gërëm leen di sant seen kóolute bi ñu am si man parce que je dois dire que depuis 2018 ba tey man maay coordonné euh, li ñuy woowee cellule d'abord départementale ensuite la cellule régionale donc di gërëm di santam les collègues de Mbour. du département de Thiès département de Tivaouane professeur de musique yëpp maa leen di nuyu ak euh, professeur de musique de façon général de du Sénégal ma leen di nuyu di leen di sant seen kóolute vraiment di leen gërëm leen sant yooyu tamit soxna Khadija di gërëm euh, Babacar di gërëm itam waa Thiès 24 si opportunité bi ñu may nii tey ma wax en tant que professeur de musique si lii nga xam ne mooy li ñu naqari si par rapport à la discipline di ñaani tamit lépp li nga xam ne wax nañ ko fii tamit également que suñu autorité yi ñu bàyyi si xel daal vraiment loolu ñun soxal nañu loolu daal vraiment merci beaucoup. ñu ngi sant di la gërëm. fii nag la ñuy yem ak yéen ci suñu émission bi tey ñi leen di jox dig daje ëllëg incha allah.